TV xam ngeen ko nag ni mu demee ci làmb dañoo jëm ci ay combat yu mag bi ci njëkk bokk na si Gris 2 Reug waaye Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Lac de Guiers ki ngeen di gis nag mooy Bada Dione yaakaar naa école de Bada Dione yéen yéen koy dégg sénégalais yi mais li gën a doy li doy waar mooy tey dañ ko jël en tant que technicien fas yéene waxtaan ak moom ngir mu décortiquer ñu ñaari combat yooyu Dione maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la balu wax si koor gi. waaw Babacar euh, ñu ngi jiite kër gi di nuyu sama mbokki bawol yi ak waa marché leen yëpp daal di rafetlu it wax dëgg yàlla interview bi ngeen def si ñun. Bada joon damay ñëw ci Gris 2 Reug Reug yaakaar naa xam nga ñaari mbër yooyu de. waaw xam naa leen léegi léegi léegi ci lan ñoom ñaar dañoo jëm ci combat ñu ñoom ñaar ñu ne kenn mësu cee daanu. am ñu ne Gris 2 Reug moo ko dàq bëre am na am na ñoo xam ne nii ñu ne d'accorduñ loolu Gris 2 dàq bëre Reug Reug waaw en tout cas dàq bëre gi nag daanaka bëriwul ci parce que Gris 2 it wax nag moo dàq bëre rek rek ku ko wax it di nga bëgg a wax ah, maanaam naa fex mënoo ko seere foofu daal loolu waa Fass nag mën nañu ko xam parce que Gris booy xool waa Fass yi nee na nu bëreegut mais ci li nu wone nii rek rek kenn daaxu ko bëre nag parce que moom dafa bëre mbapat di daan ay jël yu yu leer nañ yu baax mais xam nga bëre dafa composé wut mën a bëre kese parce que bëre day laaj bëre door la xeex avantage la bëre avantage la nga avantage la poids avantage la fit avantage la daanaka mën a bëre gi lu tuuti la ci parce que mbay Guèye Tafa Guèye ñoom Jallo ñëpp ba ci Boy Bambara de toogunu ba nu yàgg ñu ne danoo mënatut a bëre moo tax ñu bàyyi bëre yaakaar naa doole moo fa nekkatul te Gris 2 la mu yor mooy doole doole jooju nag avantage la bëre dina daan doole mais pour ñoom ñaar nga bëgg a viser ne kii moom man moom day compliqué. ñoom ñaar bu ma la doon laaj ci côté bëre bu ñu combat bu gaawee kan la avantage loo may wax. bu combat bi gaawee waaw. parce que combat bi bu gaawee nag euh, avantage su rek Reug la parce que mbër bu fekkee ni dafa nekk ni poids léger la yow yaa ko gën a diis maanaam xam nga boo yëngoo moom moo la ëpp avantage mais boo riigee du la mën a daan bëre bi bu yéexee nekkul avantage su rek Reug parce que poids lourd bu taajoo mënoo ko yóbbu fenn bu raamee bu dire ko mënoo ko yóbbu mais biir bëre du génn mën nañu laa fel weer la ndomba mën ngaa riñaani ñu fàq la nga nga nga raam xam nga mën nañu laa yër génn nga dëpp yooyu yëpp def ci am loolu tax toujours ki nga xamante ni moo gën a oyof mooy ëpp avantage bu bëre bi gaawee daal voilà. parce que dañ dama dégg tamit ku mel ni Pala Diop dañ ko jàng ci ay waxam mooy manager Reug Reug mu ne combat bi nañ defoon Elton la ñuy def Gris 2 maanaam dañ koy cons ak moom bëriloo ko ba mu ba mu sonn ñu door koo daan. loola loola xam nga moom loolu bataille psychologique la mais Gris 2 moom. daanaka poids lourd saa yoo bëggee koos moom yaa ngi ñàkk saas parce que boo ko jëlee ñaari yoon te yóbbuwoo ko da ngay jeexal tàkk te Gris dafa am doole boo kal boo xoolee moom moo ëpp Reug Reug doole Reug Reug li ko arrangé rek mooy taf-taf bëre bi gaaw andil ko bëre mais bu waax bu waa ji xesee jàpp parce que koos moom jàpp da cee bokk jël ku da cee jàpp da cee bokk te yooyu yëpp benn bu ci bu ci bu ci bu ci Gris 2 am Reug Reug ñàkk mooy jàpp Reug Reug nag mën na ko daan ci bëre balaa jàpp balaa jàpp nga daan ko. da nga ne Gris 2 ëpp doole yow lu tax nga ne Gris 2 moo ëpp doole wala dafa ëpp maas. moo ëpp doole sax. ci kaw nan la foo teg loolu. Gris 2 bu entraîné wul woon Reug Reug di entraîné sax moo ko ëpp doole parce que danoo bokkul yàq bokku nu yàq te Reug Reug ki man tey man ak yow boo entraîné ma entraîné maa lay ëpp doole daanaka yow boo entraîné woon ma tëdd sax maa lay ëpp doole. mais John sama diggante yow est-ce que ni mu demee noonu la différence boobu am na ci diggante gi rek rek. rek rek liggéey noonu entraînement ko yóbbu foofu mu nekk rek waaw mais bu fekkee ni yow da nga nekk euh, quatre-vingts kilo quatre-vingt-dix kilos entraîné ba nekk cent kilos kii nekk cent vingt-cinq kilos entraîné ba nekk cent cinquante kilos mënu ngeen a tolloo. leen rek la ko mënoon a avantage muy entraîné mu toog. mais mu ngi manipuler ay ponkol di dem. ponkol yooyu bokkul ak Gris 2. Elton du ponkol. non Elton ponkol la moo xamante ne nii dafa bàyyi woon bëre presque presque day moodu moodu ji Reug Reug bu ko xoolee foofu mën naa juum kii defa toog resté ci làmb ji ah Reug Elton nag ab Abdou Diouf ñëpp dañuy dem di tukki dem Espagne bu nu dikkee am fi un mois bu nu gisee combat bëre dellu xam nga loolu daanaka booy xool mber nekkatu fa ba noppi tu amatul écrit mais kii seen écrit dañuy regroupé liggéey yow xam nga fas yow man non xam bi baan ça veut dire que lamb la ci lamb lañ ne. ñoom dañuy préparer mbert dañuy jàng mber xool la muy bëre xool la nga xamante ni moom la seen adversaire mën te ñoom faas ñaare seen mbër du leen rëcc di dem di dugg ak a génn ñoom saa yoo demee ba mbër gi nekkatul ci yow ñu xam ne gëmatoo ko ñu commencé écarter la génne la mais xam nga Elton nit ñoom seen écrit ku ne fu la neex aw. yow da ngay am combat rek dik tànn ay booy dik entraîner xam nga loolu taxatut ñuy wax compétition te rek rek day compétir toujours loolu la bénéficier Elton. ñoo euh, Gris 2 am nga loo koy moytuloo ci Reug Reug. man man nag gisuma loo xamante ni giri de war na ko mën a moytu ci Reug Reug nag wax dëgg yàlla. Reug Reug nag loo koy moytuloo bu bu Gris bu bu Gris li nekk ci li war a nekk ci moom bu nekkee ci moom rek rek waru ko mën a andil problème ci benn côté. Reug am na lu mu war a moytu ci Gris 2 wala loo koy moytu. am na lu mu war lu mu ci war a moytu. comme lan. ah loolu garaaw jarul ma la koy wax. xanaa far. man moom Gris 2 laa parce que moo dekk Medina man man man bul bul sonn man sama làmb yëpp mooy bawal Medina mais nag ci kaw nii nga may wax nii moom awma ci loo xamante dëgg laay wax daal. aussi Reug rek man sama booy la man xamante nañu bu baax moom xam na ne mbir mi dinaa yi laa faral même dal ma ci tooñ affaire yooyu mais man Gris da laa faral waaw parce que nag nit ki bu fekkee ni dafa dekk ak yow faraloo ko soxor day bëgg a dugg. ñoom ñaar bu ñu xeexee. bu ñu xeexee Gris de ëpp su ma lay dégg nga demee ni kon Gris 2 moo ëpp léegi ci côté avantage est-ce que noonu la demee. juum juum rek la ko Reug Reug mën a daanee boo bëggee dégg-dégg. mu juum xam nga nag mën nga nekk favor te teewut ñu daan la parce que bërekat moom mën naa daan ku ne mën nga daan ku la man rek Reug mën na daan ku ne mais nag bu fekkee ni juum amut Gris 2 Reug Reug bu waru ko mën a daan promoteur bi ku tëgg xam nga ko Luc Nicolaï waaw muy def ñaar fukki at ci bés boobu loo ma si mën a wax non loolu ñu koy ñaanal rek parce que Luc Nicolaï moom ku ne gis na li mu fi mu yóbbu lam ak li mu ci def yàlla mën naa ne à part Gaston à part Gaston ak Aziz ak sëñ Modou li mu fi def kenn defu ko parce que nag moom yow da journée yu bari ngay wax mais man xaalis bi ngay investir ak risques yi xam nga am na ñooñ duñu risque yi xam nga jël combat def ci trois cent millions man xam naa li ci làmb moom lig Nicolas mu may dégg di nga am combat ba sa cinquante millions dina ne mes wala cent millions am na ñoo xamante ni xam nga boo ko bëggee tàkkale koo xam ne day calculer li muy teg moom du ci mën perte lu mat trois cent mille quatre cent mille boo leen bëggee comparer it nag du sotti parce que léegi Nicolas ñoom ay ay ay ay bailleur lañu ñoom dañuy investir carrément xaalis ba ñu nekk fii di xam nga di di di raamal di cof di moytu moom day risque dugal xaalis bu bëri boo xam ne yow problème bu ne mën nga ko si am kon looloo tax waa dëgg yàlla nga ne ko yow euh, moom ak Gaston ak ku mel ni Assis ak Abdou Fall comme ni ñuy tegee noonu. wax dëgg yàlla nga ne leen bokku leen ak gaa yi maanaam wàññeewul dara daal gaa yi waruñu ci gis loolu parce que ñoom dañu ciy sacrifié wu parce que gis nga ci ñoo xamante ne nii dem nañu ba am problème ak banque boo gën réew mi xam nga ñooñu tey mënuñu daj loolu nga boog leen a tàkkale koo xamante ne nii li muy dugal matu 10 million nag wax dëgg nañu waxante dëgg du benn voilà. loolu moom boo ko waxee parce que yow promoteur nga moo jëkk a tëgg Balla Gaye de Bandia